maaleykum amee internautes yi ñuy seetaan ni ma daan def ak yéen chaque émission tey nag dañu seet si ki nga xam ne mooy oustaz Mouhamed Mbaye ñu seet si ko fii biir biroom di Sen TV da ngeen daal di ñëw rek ma daal di koy nuyu mu wax ak askan bi ma jox ko micro bi oustaz Mouhamed nuyu nañ la. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu law naa sabat xadruhu ayatuhu izaman ahyasmuhu xiina yudra daarisar rimami sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay nañ di ñi nga xamante ni ah, ñoo ñuy topp ci euh, émission bi. Mhm. actualité yi nag dañ ko dégg ci internet bi yéen ustaas yi ngeen xew lool bës bi ngeen tee ko ah ustaas lan moo waral loolu coow li bëri na de. lu ma ci xam li ko waral de wax dëgg yàlla xaw ma ko. Euh, ñëwaguñ daal ci man man daal chaque jour maa ngi romb ci internet bi maa ngi lire maa ngi gis ay commentaire maa ngi dugg ci TikTok yéegi yëpp maa ngi gis Euh, waaye daal comme man waxuñu ma <laughs> mën naa cee bañ a wax. waaye waaye waaye coowul mbaacol yeeg oustaz Pape Hann beeg yooyu noonu a ah, war nga cee xam dara. no loolu nag dinaa la xamal dara gis nga Nikita la loolu ñaar ñoo ci xam dara mooy oustaz Pape Hann moom yëfi te ba tey man wax dëgg yàlla dégg gu ma benn vidéo mbaaco wax ne oustaz Pape Hann takk na ma man gisuma ko da ko gis vidéo boo xamante ni gis nga ni mbaaco nee na oustaz Pape Hann takk na ma gisuma ko gisuma benn yoon benn vidéo ni oustaz Pape Hann ni manit takk naa mbaa co mais loolu kay du sama discussion nag loolu du xam-xam loolu nit xam-xamaale wu ko déedéet mais liste bi ñoo ngi lim de liste bi ñoo ngi lim oustaz bu ci nekk baa duñ la limaale non duñ ma limaale nag parce que xaaroo sa tur non xaaruma sama tur bokkuma ci man xaaruma sama tur man dama ragal sama ay kilifa dama ragal sañ sëñ Mansour si Djamil dama ragaluma ko waaye dama jomb mu dégg ma ci lenn dama jomb sëñ Ahmada si Jamil dégg ma ci leen waaye tamit njortu naa ni oustaz yooyu ñu ci waxit dañu weex dunq rek waaye gëw ma ni bokk nañ ci parce que nekkul ni xam naa leen dama leen a miin. waaye sa bopp rek yow oustaz li ñuy def xam mën na am ñu bokk ci. dama jàpp ni ñoom ñoo ma gën a baax parce que xam naa ci sama melokaan man lu ma xamul ci ñoom koo gis ci àdduna xam na ci boppam lu ma xamul ci nawleem te alxuraan dafa ni fala tuzakku anfusakum wa huwa aalamu bi man ittaqaa ni ki taa bu kenn fëgg dënnam yàlla rek moo xam ki ko ragal bu ñu dajee yow mal xiyaam bari na koy foog daraja kees sa jàppale ci moom bari na koy fook safara mu jiit lekk ay gor yóbbu leen aljana nanu bàyyi ba yow mal xiyaam rek <laughs> mais nag ñu ngi am na luñ ma deey dégg naa mbaaco sa xarit la da ngay dem këram da nga fay naani café baa nekk woon faru nañ ma ko man xaw ma mbaaco xamante nañ ñi rek xamante nañu xamante déggante mais yàlla def na mus ñoo gisee mus ñoo gisee xawma fu këram féete moom tamit noonu waaye daal damay wax ni euh, inna la xayiyun sittirun yàlla ku bari kersa la xoolal yàlla mu bind jaam ñi yàlla mu bind kersa bu mënee jël ci kersa dénk boppam yàlla mi mën a bind sutura bu bindee sutura cërale boppam kon ñun doomu aadama yi nan nan la ñu war a mel Nikita est-ce que xam nga ni lu gor wax moroomu gorom balaa yomal xiyaam mu dal ko boo wili pandee nit balaa yomal xiyaam sa yëpp ni fàng man maa lax loolu boo boo parce que yonent bi dafa ni man satara musliman ku suturaal jullit satara wallaahu yàlla suturaal la fii jàmbaar amu fi de ku yàlla dimbali kese moo fi am man nag maa ngi togg ginnaaw maa ngi togg nag du ma reeku xamle xam nga mën na ëllëg mën naa xamle comme maa ngi ci yoonu togg gi mooy oustaz gi te carrière la lu nekk ngi ci kanam di ñëw léegi taa gis nga euh, jàmbaar amul yàlla seede na ko du góor du jigéen li ñaan pexe jigéen dafa rëy pexe jigéen ak pexe góor yëpp ci bokk yam da ngay ñaan yàlla mu lay suturaal rek mais amul kenn ci àdduna kuy dox gis nga ëmb ci koñ jigéen ñi di ko waxtaane te ñu koy waxtaane ñëpp a xam góor yàllaa leen suturaal ni ñu koy defee gën a yeewu ki ëmb mais fii kenn jubul wala ñi yàlla mil ne parfait kenn waxuma waxuma jubadi ji jëm ci wàllu ay jigéen ak de kenn jubul mooy kenn deful yàlla bëgg lépp nil ne parfait lu tubaab loolu la tubaab wax mais yàlla dafa ni alkamaalu lillahi yàlla rek moo mat insaaniya nit ci insaaniya lañ ko bind insaan mooy doomu aadama mooy kuy fàtte kuy juum yooyu la ñu bindee nit ginnaaw ci yooyu lañ la bindee te li seytaane waxoon yàlla ba ko yàlla ne maam aadamaa tax ma génne la aljana ndax sujootaloo ko taxaw ba mu taxawoon ni yàlla maa ngi fa ma taxaw ba tey jógee gu fa moom seytaane afa bi ma aghwaytani laaqudanna lahum siratakal mustaqim summa la atiyanahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wala tajidu aksarahum shakirin ba seytaane waxoon ba tey ay jàmbaar rek lay wër pour daane leen seytaane soxlawul ñu naan sàngara déedéet yi lay wër ak ñu mel ni ñoom bés bi daal tee ngeen ko waaye oustaz ñu gis tamit jamono ji nii divorce yu dafa bëri lool oustaz jamono jii da ngay gis ku sëy tey benn une semaine sëy nga dégg ku ne mariage bi may nañ ko ay million may nañ ko millions yu baree baree baree bari mais seen sëy mënul mat sax un mois wala deux mois lan moo waral loolu maanaam jinne la wala seytaane wala lan wala lu dugg léegi ci réew mi tas yi dafa bëri dama jàpp ne dogalu yàlla boo demee ci jumaa wala jàkk ñuy xutba sëy da ngay dégg imaam bi naan fa imsaakun da dangeen ni ànd bi maarufin ci njekk aw tasrixun wala ngeen tàqalikoo bi ixsaanin ci rafetal xoolal premier jour sëy ñuy wax loolu ci xutba juma fa im ci xutba sëy ñu ne la fa imsaakun da ngeen ni ànd yéen ñaar bi ma maarufin ci njekk aw tasrixun wala ngeen tàqalikoo bi ixsaanin ci lu rafet parce que tey jëkkër ak jabar bu ñu demee ba mënatuñoo nekk ku ne di woon sa bopp morom ginnaaw kenn ku nekk bu ndaw si toggee waaju du lekk yenn saay waaju du joxe dépense deux mois trois mois ngeen bëgg a nekk ci benn kër am ay njaboot kenn ku ne doo wax ak sa morom te ngeen a tàqali ko ku ne wari leneen amaana kenn ku ne boo soree sa moroom ci ngay xam njariñam gis nga Nikita nit lu mu yo lu ko yomb mu fawee ko wala déet am na koo xam ne tey jii suba ak ngoon guddeeg bëccëg mu ngi yor ay dossier pour déposer Sen TV man léeg-léeg ma daw liggéey te pourtant daj naa lu ne pour liggéey fi keneen noonu keneen noonu keneen noonu am na koo xamante ni fu ne la jaar yar bu ne la wane mais biñ ko joxee oto ba ne ci kaw tali bi nu ko neex lay dawalee sëy yi yëpp dama jàpp la rek parce que sëy ginnaaw yàlla nga koy takke ca aras ni bu tàqali koowee itamit donte neexul yàlla waaye lépp lu am dogalu yàlla la na ko jaam ñi teg foofu rek noppalu waaw loolu moom dégg naa ko nag lu am rek yàlla la waaye gars yi dañ koy dig dañ koy dañ koy ci sëriñ bi la wala nangam mais lu am yàlla la te it nga bëgg ñu nga wax ñu tey ji ci kan bi Sénégal match yi metti na saa yu ñu demee ñu doon ñu lan ngay ñaax euh, waa Sénégal seen match yi nan nu ñu war a def laxdar yu dafa ni wala yaxilu lil muslimi an yafaala fialan xata yaalama xukmallaahi fiihi nit warul attewoo ci dara lu mu xamul nit wala yaxilu warul lil muslimi ci julit an yafaala muy jëf fialan benn jëf nit warta def dara xata yaalama xukmallaahi fii kii lay caméral caméra a jàng mais yow mi may laaj lii nga jàng man mi man mi lay tontu lii laa jàng football maa ci xamul dara man loolooy sama problème mënuma ma football Nikita man du ma football du ma seetaan football aw ma jotu football mbër lamb yi nag sama xarit lañu ñoom ñëpp samay xarit lañu parce que ñun ñoo bokk soo biis bi dañuy gisee mais du aw ma jot parce que yàlla daf maa booleeg sëriñ soo xamante ni ay sëtu sëriñ Babacar lañu jamono ji nit ñi di seetaan ay bëreeg ay làmb yàlla damaa suturaal ba heure boobu daf may fekk ay ak ay ñoom yoonu waalo wala mu fekk ma ak ñoom ci ay tàkkusaan ak ay conférence itte boobu laa tàmb ba fii may wax ak yow nii wallahi wal quraanil karim benn jour laa xam équipe national muy saajo Mané mos naa dégg loolu benn jour laa xam équipe national benn jour muy Sadio maane ñeneen ñëpp ay kakaaw ak karambooj ak ñëpp xamoo ci kenn alxuraan ku ma ci dajal xàmmeewu ma ko du dara de du dara xamul tax du dara parce que tey nag xubul watani min al iman buñ gàñee Sénégal daf may naqari parce que damay bëgg mu gàñe fii ku la wax ni la doo far amul man senegal laa faral tey ay ñaari mbër sax bu nu doon bëre dinaa mbër mu la yàlla nattu nga faral ko ñaari ginaar boo leen romboon ñuy bëre faw nga am ginaar goo faral yow boo demee di jënd tisi ñaari tisi tege mënoo jënd ñaari yëpp da ngay xool bila la gën a neex nga jënd ko demal tey ci ci ci musique am na ñoo xam ne saa yu ñu xëyee ñu ngi yor seen ay ay ay lu ñu xam ci lu baax ci ci ci ci ci ci benn waykat bi ñu wax ko lu ñu xam ci Waly Seck ci lu ñaaw ñu génn ko lu ñu xam ci Sidi Diop lu rafet dañ koy def na ñoo xamante ne boo demee lu raf rafet la ñu génne heure rek la ñu xaar ci ci Sidi Diop am ñoo xamante ne ñu ngi xaar ci Ngaaka Blindé ah ay défauts am ñoo xam ñu ngi xaar ci dip ay défauts parce que jeune laa duma ma mag dama donte xaw ma leen mais dama leen di lire ci internet bi benn jour Ngaaka Blindé dafa ne ma sama yaay yow yaay fan sam wala déet euh, léeg-léeg mbër mu mag ne ma sama yaay yaay fan sam parce que daf lay seetaan ci tele bi daf la soob star boo gis yaayam am na ku mu bëgg mais loolu moo ñu taar mais li wér mooy kan bi yàlla na nu gañe waaye aw ma ci aw ma ci zóor waaye bu ma sañoon ñooy gagné non non waa xaw ma leen mais déggoo ma la bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk bu ma sañoon lu ñëw Sénégal moo koy gañe lu mu doon ci àdduna lu mu doon laa wax ci àdduna ba mu des lu bon Sénégal la koy gagné Sénégal nag lenn lenn kese lañ waruloon am gis nga nag ñun ba na amee téléphone lan lonk Sénégal Sénégal boo bëggee dégg dëgg rek téléphone simple moo fi waroon a wàcc ñu ñu euh, Sinap warul woon ñëw TikTok warul woon ñëw. YouTube warul woon ñëw parce que ñun li ko tubaab bi dooyee ak ñun li ñu koy sa c'est diamétralement opposé dañ ci yàqaate da ngay gis koo xam ne da ngay gis fenn film la wala nga def vidéo nit partagé ko dañ ci yàqante man caméra la ñu ma tiimale caméra sama dund xam nga ni xam nga tey ji maa ngi dugg samay 40 benn yoon laa mos a dugg restaurant ci te maa ngi ni toog vidéo mooma tiim benn yoon laa ci mos a dugg restaurant sama àdduna parce que dama judd fekk sama taaw papa na xarit deret sama papa ngi dund ba tey sama yaay ngi dund yàlla yàlla bàyyi leen fi mais dama fekk sama taawu baay bokkuñu baay bokkuñu yaay bàyyi la bokk mais gis nga mu indi naqari deret indi yar ay rakkam nii sunu kër dama judd rek fekk fa daay daayira ma nekk ci riiru ay daay ak samedi ak dimanche ma ne daay daayira ba taluma ay bëreeg parce que ci lañ ma yar tourné ànd ak sëriñ si sëñ Mansour si Jamil sëriñ Ahmada ba fii ma toll lu ma xamul xaw ma ko sam papa këram a ngi nii Medina Angle Blaise Diagne mais yàlla seede na ni bu ma déparé fii bu sama kër bu dul faas feneen fu ma jëm wara wa rabbil kaabati taximaan laay laaj sama oto fan moo jëm fii fan moo jëm fii fan moo jëm fii man pour man fu ma wàccee seen TV ñibbi mooy sama farata ku ma ni dama laa nopp ma sama soxna diw neen damaa nopp wóorul dan may capturé daas loolu doy na waar de ku la nam nga ne sa jabar nam no eh, waay que doomu takk ñetteel boo demee waxoo ko ah, ce que ñeme na wa laa ilaa ñeme gi nag du sama soxna ñeme gi ci man mii la parce que nekkul kenn takkalu ma man maay takkal sama bopp man ku ma gis parce que nañu bàyyi euh, jërëjëf nakitaa du nakitaa la mais oustaz xanaa duñ ay nit oustaz bu demee këram jabaram du ko wax oustaz ci turam lay jar man tey oustaz ngeen may wax mais sama soxna du ma wax oustaz papa la may wax wala bébé parce que loolu lay dund ak man mais lan mooy oustaz yi oustaz ay nit di jàngale yor benn mission xam nga oustaz mooy lan comme Sadio maane mi football wala déet xam nga oustaz mooy lan comme comme caméraman bi parce que daf ko jàng caméra oustaz beem jàngi oustaz demal université ku nekk la nga jàng loolu nga jàng mais boo waaraatee ah <laughs> olof ma la bëgg wax naa ko tëb sax comme dagg daa xew ah yow laay <laughs> nag ñuy ñuy gis ci internet bi instant bii nii muy Adamo ak euh, am zozo bi may dégg États-Unis ñu ñu nekk ci kaab di ci wax di ci tudd ay tur ah ñaar ñooñu lan nga leen di wax ak Adamo mi nga xam ne nekkee fi lu dul lu nit wax mu mu mu mu kii ko ci internet bi baa mu génnee la jot la rek billaahi am jot baaxul balaa may dem foofu est-ce que xam nga ni siif nañ min daan boo dégg jàppal ni ki ko siif amul liggéey ñi xëy ñëpp tooguñu ci kër yi moom maa ngi koy lancé message taalibe seex la taalibe Serigne Babacar si la yonent bi nee na man sa tëram musliman damay jàkkaarlu moom publiquement ma wax ko maa ngi la koy ñaan aadamoo aadamoo maa ngi la koy ñaan ci barki Serigne Babacar si yonent bi dafa ni man satara musliman ku suturaal jullit satarahullahu yàlla suturaal ko maa ngi la koy ñaan xam naa miinu ma miinu ma ko mais ci moom laay jaar ma ne ko aada moo aada moo du noonu la tudd sëñ baaba si mooy sa sëriñ maa ngi lay ñaan ci barke sëriñ Babacar si xadisu yonent bi yonent bi nee na man satara musliman ku suturaal jullit satarahullahu yàlla suturaal la képp ku la indilat ay awra jàmbur ngir nga wili pande ko bàyyil xel carrière ëllëgam nga suturaal ko ci barke Cheikh Al ci barke Serigne Babacar si loolu rek laa ñaan aada moo aada moo maa ngi la koy ñaan ci barke Serigne Babacar si. aada moo déglu nag sama oustaz Mouhamed Mbaye euh, te oustaz ñu gis euh, am zozo mu ne moom instant bi mu ngi ci épisode 10 mel ni ku nekk ci genre film épisode 10 di lim oustaz yëpp nag mu ngi lim seen tournée épisode di la la toll kooku lan nga koy wax. xam nga wax naa la damay seetaan lépp nit bu la waxee boppam na ngay noppalu ñaanuma ko duma ko mus a ñaan parce que nee na xool kum ci waxal. kooku am zozo la bokkul ak Adamo am zozo. am zozo moo ne Amérique seetaan naa ko man lu ma lex daf may leer Suède la nekk seetaan naa ko kaa bi ma mujjee seetaan mu ngi wax ci soxna Aida Diallo xam nga kañ laa ko seetaan tey bi ma julee fajar ba pare laa ko seetaan muy wax parce que damay dund ceebu jën kenn du ko togg di ko yóbbu ci ay almeer ceebu jën ku ko togg ko togg ci ay ñuy dund man damay dund lu xew ci internet bi du ma ko romb dama koy déglu parce que man maa nekk ci marché bi nag te olof nee na ku dee ci marché yaa sa ci marché bi laa ne tant que maa ngi ci marché bi saa ma xëyee man ragalu ma sax wala commentaire barke alxuraan damay xool commentaire yi ñi ma saaga ma xool période bi may saaga ban erreur laa defoon pour ma jàng ci ki ma xas ban erreur laa def fi ma xasee parce que ah ku ma saaga samay néew ci man man gor laa dañu maa yar du ma wax ne ma lu ma neex def du ma bind sama doxumaa tey damay déglu ay critique parce que ñi may critiquer dañ ma sopp bëgguñu ma laal suuf mais lu ma neex laay wax lu ma neex laay def man duma ma nit ñooñu parce que dama am ay nawle dama am ay kilifa dañu may bàyyi xel ma ma ay soppe ku ma ku ma ku ma commentaire saaga ma damay xool commentaire bi pourquoi mu saaga ma léeg-léeg damay dugg damay daf may jaral ma dugg ci yow wallahi ay nit yu bari def nañ ma ci xarit ni la diw da maa saaga man la oustaz Mouhamed Mbaye lu ma def fa nga saaga ma nga pare fa jaar xaritoog man mais Euh, commentaire bu ma gis rek jàll non non dama koy dem liiri xam lu tax mu saaga ma oustaz yëpp a yem amul benn problème parce que règle boo gis am na exception am na waaw mais ki de ki ne silmaxa lu def yàlla yow mi xool loo defal yàlla ki ne muuma lu mu def yàlla yow mi wax loo defal yàlla ki tax lu mu def yàlla yow miy dégg loo defal yàlla kii raam lu def yàlla yow miy dox loo defal yàlla yàlla defal na ma Mouhamed Mbaye bu rombee ñu ne mu ngi ne di dem lu ci des du ma yàq loolu ku ni man li nga defee du noonu dama lay déglu man damay déglu kirti gi damay déglu commentaire parce que dama bëgg a avancer waaye moom moom wax loolu aw ma lenn lu moo koy ñaan comme kaay yi des na man sant naa yàlla ba kaay bokk ma ci parce que nit ku wéet xam boppam wala déet ku wet ci àdduna xam sa bopp man bu dee kaay bi foofu rek la ko teg fu ma tëdd damay nelaw ndax bokk ma ci <laughs> sa tour ñëwagul de dégg naa tamit ma ne dégg naa ndaan nga naa ni café kër mbaaco simi fa sa raay kiis daa mel ni deux nee na épisode 10 la nekk ba épisode 10 bi doo ci bokk non man xaw ma kër mbaaco man moom foo doon faa neex la mais nag mais nag mais nag mbaaco soofu ma waxuma soofu ma ci mbëggeel de soofu ma ndax wala xadd karam naa bani aadama laay xool ci moom na leer soofu la la non soofu ma ci ci ci ci ñu tuumaal ko euh, ki nga ma wax sànq aadamoo soofu ma ndax ndax li muy def man amul ku ma soof maa ngi teg lépp yàlla ni mu riise bu mënee bind ay jaamam jaam bu ne am noo mel am ñu ko neex am ñu ko neexul yàlla ni imma hadaynaahu sabilan imma shakiran wa imma kafuran wa bu yàlla bindee jaam ni tëral naa ñaari yoon ku jaar ni dem aljana ku jaar ni dem safara yow ngay nekk ci yoonu safara di def loo neex yàlla bu ko neex mu yónni malaakal mawti mais xolam baax mu deneerul la loo bëgg ci teraanga àdduna mu defal la ko di la suturaal di la sagal nga foog ni yaa ngi ci donkaasi gi amul jaam bu yàlla bind ci àdduna ma bañ la ku yàlla bind bàyyi naa la xel ku yàlla bind naw naa la mais maa ngi ñaan maa ngi ñaan maa ngi ñaan maa ngi ñaan maa ngi ñaan nañu nañu suturaalante nañu suturaalante nañu bàyyi weerante bi nañu bàyyi mbaacu jigéen la ëllëg mën a am doom gis nga yàlla nañu bàyyi ba nit loolu ci sukuraat ñu doog a zizeel est-ce que xam nga nit bu génnee àdduna yàlla nee na boo xamoon ci moom naan sàngara boo xamoon ci moom njaaloo boo ko nettalee ma bindal la bàkkaar uskuru waxtaani leen ma mawtaakum ki dee li mu rafet la yàlla nee na waxtaane ko bu yàlla mënee suturaal ki dee kon kii dund nan nga war a jëflante ak moom nit loo xam ci moom ci lu ñaaw nëbbal ko ko te yaa ngi ci yoon te xamoo kañ ngay egg man aw balaa meewu ma mbaaco balaa meewu ma keneen balaa ma keneen ñii wax lu ñaaw di indi ay kaa di teg laa wax ni nanu ko bàyyi bale bi seetal nag foo ko fekk du set xaw ma ndax dégg nga ma bale bi ci baax bale bi ci kër gi bu dee mooy seetal tilimu kër gi del xool bale bi foo ko fekk day tilim olof la bu xóot dama kaa def xaw ma point d'interrogation waaye waaye sénégalais yeeg ñëpp àdduna bi daal dañ tàmm di wax ustaas yi nga baal ma ci kàddu bi ustaas yi dañ bëgg jigéen ustaas yi dañuy doxal mais dama leen di wax si temps xanaa ustaas duñ nit loolu moom foofu loolu danga il faut nga ñëw ci mën naa nekk xam nga lu tax ñu bëgg jigéen wàcc leen mooy yàlla yow mal xiyaam digéewu fa ay micro digéewu fa ay caméra yàlla aljana ay uurul ay nii la digg digee comme yàlla xam ne ni nit dafa war a bëgg jigéen góor yàlla dig ñu wala déet yàlla uurul ay ni la digee aljana est ce que dafaa digee ay micro non ay lan la yàlla diggee ay ay ay ay saal yu rafet ay lekk yu neex ma yàlla teg ci ay uurul ay ni góor gu ne di nga am 700 femmes yawmal qiyaam góor gu war a dem aljana da ngay am yow sa jëkkër ji la war a takk ak yow day am 700 femmes ak yow muy 701 femmes man ak sama ñaar ma am 700 plus sama deux yi ma amaguma ak xamaguma kañ lay arrêté waaw l'essentiel ni kuy dund laa la wax da ngay def jëfi kuy dund mais doomu aadama bu dee say tànk dañ cee def projecteur foo ko teg war nay leer nit bu dee sa tànk yi dañ cee takk projecteur mooy tey oustaz Mouhamed mbay la fu muy teg tànkam war naa leer parce que xam nga lu tax duñ la pardonné am na koo xam ne bu defee xolal bàkkaari oustaz bi ak bàkkaari caméraman bi ñoo yem ci yàlla waaye dégg ni ñooy jafe parce que baatu oustaz bi dañ naan lu tax mu xam yàlla di ko def wala déet tey gis nga infraction jaay ci nitu simple bi la gën a seddee ci gendarme bi ñu romb benn gendarme ak benn citoyen bu jaay yàmba ñu jàppandoo leen dañ naan benn gendarme ak benn waay est-ce que yaa ngi dégg bu dee benn policier ñu ne benn policier ak benn waay bu dee sapeur noonu la oustaz mel mais oustaz xam-xam la booy dem jàngi ñëw jox doomu aadama yi wax naa la sànq nag ne la chaque jour bale bii seetal foo ko fekk ci kër gi moom ti tili ma koy bëgg a rey nit ki da ngay dégg lim lay wax waaye bul xool melokaanam euh, mais Ablaye Diop xaas bu ne musuma sëy ak moom mbaacoo ba dégguma ko mu wax gis nga gis nga tekk la def ñi ñu ci coow yëpp xaas rek laa dégg mu wax te wallaahi miin naa ko xam naa ko dafa teel a génn kon man ne ko bul ci wax xanaa xamoo ni euh, nu mu tudd euh, wax ju wa ku wax jox sa morom day yéex a dindi tuuma Sénégal nag dama foog ni dañ doon jaay engrais di jaay engrais di jaay engrais ba jaay engrais awra ñëw sotti ko ci sunu ceeb bi. ñu bayaale ko chaque jour gisuma avantage bu ñuy avancel la lañu am lan la ñuy waxtaane chaque jour Balla Gaye moo mën diw Waly moo mën diw euh, euh, euh, nu mu tudd Ngaaka moo mën diw mais Sénégal ba kañ loolu rek mooy sunu détail amul leneen amul amul amul leneen yàqante sosante lañ xam lañ xam ñun Sénégal loolu kase kase kase lañ xam mais lan ngay lan ngay wax sa dernier mot après ñu tëj parce que instant bi plainte yeeg yooyu yéegal wàcc yi xaas dugaloon na plainte lan nga leen di ñaax instant bi nii nii ñu wax suñu dernier moom pour émission bi jeex barke alxuraan damay damay toog di xalaat yonent bi ma ne ko koo dajal yow mal xiyaam yaay ko sallallahu alayhi wa sallam gis nga nabi kuy doomu aadama boo dajee moom yow mal xiyaam jol màkk yaay la xam nga lu tax fa bi ma rahmatin min allahi linta lahum ku yonent bi gën ci kula la gëne ak xol réew mi du la naqari rek da ngaa dem plainte da war a dem plainte kon anu valeur u baale bi yàlla doon wax waxfir lahum wastaghfir lahum wa shawin fil amri damay xalaat yonent bi lu tax nit ñi amatuñu patience u baale lu tax nit ñi amatuñu patience su jéggale nit loo ko waxal lu ko naqar rek prison lay mu dem bindi plainte nañ la tëj nañ ko revue de presse après jeex na man lu ma waaye def ma baal ko man ñaata yoon la nit di xoos sama oto ci kaw tali daw naa ba ñu mbëkkee ma ginnaaw toj sama rétroviseur ma sama sama man ma ni ko baal naa la nañ ko saa ko ëpp naa def segam ñu ngi dund di ko waxtaane chaque jour damay ñaan yàlla yàlla nag ma may xolu baale man bañ naa ba li may ree mu man faskanam kanam sax jàpp ma ay ay ay ay di firi waaw tabaarakallaahu mais yow wax jàmbur ngay nettali loo ci fas sa kanam ah waxu jàmbur la yàlla la ak yonent bi man foo ma fekk damay ree parce que yonent bi mu maas yax dafa neexoon deret xayru xaqin ma ilayhi nummi waaye li muy neex neex deret du wax lu dul dëgg nañu wàññi plainte yi nañu suturaalante nañu nañu baal jigéen ñi jigéen ñi baal seen i morom yonent bi sama daane la ngi noonu ajam bu mujj muy aj xam nga lan la wax fattaqullaha fi nisaikum wastawsu bihinna xayran ragal leen yàlla ci seen ay jigéen ngeen di dénkanteeg ñoom lu baax bu fekkee ni mbaaco waxul nit ñi ñooy wax jarul ñuy plainte mbaaco moom bu xamee xam nga àdduna lu fi am solo na yàlla xam ñi si def ñëpp jënuñoo déglu oustaz Mourou Fall dégg naa ko mu wax wax bu am solo bàkkaar yàllaay ki koy bind yabal ay malaakaam te fa in afawta afwan fa rabbul ghafaaru yàlla ku ko jéggalu mu jéggal la nit ñi nañu dellu ci lu ñuy avancer Sénégal bokk na ci pays Afrique yi ñu daan naw ci teraanga fi mu toll ni kenn nawatuñu ci dara dafa mel ni réew mi Seydil Hadji Malick nekkatu fi dafa mel ni réew mi Cheikhul Khadim nekkatu fi dafa mel ni réew mi Mame Baye nekkatu fi dafa mel ni réew mi kilifa yu baax yi ci Njaasaan nekkuñu fi ana ñooñu ñu ngi ci biir suuf mais ñu jàpp réew mi di ko caxat caxate bàyyi ku ne di sànni kàddu TikTok bi di tas àdduna YouTube bi di tas àdduna fekk leen ma live fekk leen ma live gis nga ko amut kersa balaa ngay génn àdduna sa sukuraat di nga sukuraat ba àdduna teg ci bët yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp maa ngi nuyu waa diaspora 221 leen yàlla defal leen jàmm defal leen sutura ci barke yonente bi gën a yokk matériel bi ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow yàlla jàppale la gaaw la may borom kër bu dee bu ma boole laa ustaas yi comme ne ngeen ustaas yi dañoo bëgg jigéen ñi bëgg jigéen ñooy takk jigéen ñi ñi bëggul jigéen du takk jigéen ñi dinaa la merci contentement ñëw set si la fi waxtaan ak yow ni lañ koy defee saa su ne maa ngi leen di euh, remercier yéen ñi nga xam ne yéen ay waa diaspora 221 may gërëm sama caméraman bu baax bi euh, maa ngi leen di euh, gërëm di leen sant